Eh, mi ci côté wér-gu-yaramam macha allah côté wér-gu-yaram santé macha allah en fait. Mm-hmm. bon après il faut prendre compte aussi de son âge am na boo à un certain âge même si il le dit pas tu sais que mm-hmm. il s'est affaibli il s'est affaibli et que loolu rek war na tax nit ñi nen nen humanisme bi foofu la foofu la war a génne en fait. Mm-hmm. ñoo euh, voilà nen nen ko bàyyi vraiment mu dellu si loxo njabootam. Mhm. man appel boobu laay def euh, au président. dafa dafa am looy wala loo seetlu si état de santé molo voilà. Mhm. tu sais son papa c'est c'est une personne. Mhm. comment vous expliquer vraiment je préfère pas ne pas en, je préfère parler côté boobu. ah mais peut-être boo si waxee ñenn ñi. parce que lui-même il l'interdit quoi. ouais. lui-même il nous interdit de parler de sa santé. santé am fragile. on va on va on va essayer de. Mm. suivre yéene wuñ ko en fait. mais mm-hmm. juste que ñu posé question su fekkee santé dafa. sama papa dafa diñ loolu laa mën a wax. Mm-hmm. dafa diñ te bëggul ko yërëm. Mm-hmm. loolu laa si mën a wax. mais yërëm nga ko en fait naturellement. c'est mon père c'est naturel. ça vient évidence la en fait. d'accord d'accord ñu ngi koy ñu ngi koy donc lan lan ngay wax sinon lu ñàkk euh, parce que maa ngi dégg sa biir wax bi yëpp gisuma benn moment boo nee ñu ngi ñaan jekk wala ñu ngi ñaan. waaw <laughs> comme gars yi lu ñuy def bu ñu téye seen waajur ñu ni. ñuy ñaan ñu ñuy ñaan wala ñu ngi jéggalu en quelque sorte ñu bàyyi. <laughs> jéggalu. sama du ñaan yekk. Mm-hmm. il nous a interdit de commander. Mm-hmm. am na droit am xam ne droit am. Mm-hmm. na yoon def liggéeyam mais ñu teg ko ci yoon. jéggalu woo leen. qu'est-ce qu'on fait pour euh, pour ñu excuser wu on a rien fait. sama deful dara. il a servi sa patrie. Il a toujours été là pour le Sénégal. Il a sacrifié 42, 40 ans de, de sa au service du peuple. donc kooku noonu boo ko boo ko njukkeelul boo ko delloo lu njukkeel vraiment doo ko teg lu metti bu fekkoon def na lu ko jaar d'accord buñ ko tegoon lu ko metti dañ koy nangu xam ne ndogal la ñu ànd ak suñu gëm yàlla nag toog di def lu ñu war a def lu ñu war si moom ñu koy def mais dañoo xam ne lii c'est injuste si c'était pas injuste doo leen ma gis fii doo leen fii sama tonton Donc c'est juste ça. Mm -hmm. Je lance un appel pour que vraiment qu'on puisse revoir la situation et essayer de libérer mon père. Mm-hmm. C'est ce que je leur demande. Voilà. Et même liberté provisoire peut-être. Après oui, comme, le disait mon, mon tonton euh, mi ngi si yoon. avocat yi ñu ngi si ñu ngi si comme mhm. période bi dañoo nekk en période de vacances et tout. Euh, mhm. est si yoon bu fekkee jàpp ngeen ni seen papa deful dara ndax ngeen confiance. voilà. voilà moi comme si mhm. si suñu justice bi. réellement en ngeen confiance am naa confiance si justice bi. ñu am si ñoom ñoom nañ ñu ko delloo rek. ñu bañ ñu gàcceloo je pense loolu loolu laa ci mën a wax. Mm-hmm. d' accord mais nam nga ko bu baax. mais oui naturellement. Mm-hmm. naturellement. Mm-hmm. j'ai j'ai besoin de mon père à mes côtés j'ai besoin qu'il soit là à tout moment. de je ses conseils me et, puis voilà c' est c' est très compliqué. vraiment donc boo gisaatoon wala bu ñëwee day ñëw sax incha allah yàgg ndax di nga ko wax en fait peut-être wàññi wax ji wala. <laughs> ça ah, c'est peine perdue ah. bon dañ d'autant plus nekk si stress parce que suy suy waxaat mën ngeen ni ah mais ngeen tiit wala ngeen xalaat ni voilà lii mën na amaat. di leen am métti trop comme situation bi ni mu demee ne bu doonoon sama sago man su ma hypocrite woon. Mhm. naa ko ah papa génn si li nga nekk. c'est parce que je suis pas hypocrite et que je sais que moom xam na li def. moo tax dañ koy bàyyi mu libre de ses choix. Mhm. parce que daf ñoo bàyyi ñu libre ci suñuy choix. Mhm. on peut pas faire autrement si sinon loolu la dañ koy tey bu génnaatoon nii je me permettrai de de venir lui li ngay def day mel ne kon man gëw ma woon sax sama combat moment mm-hmm. parce que damay wax ne kii nitu dëgg la ki nit ku diñ la ku xam li muy def ku bëgg lu muy def sama si lu mu dugg da si dugg si fulla si fayda ak si jom mm-hmm. et ñëpp ñu ko xam ñu ko côtoyé xam ne ne commissaire Keita nit ko am fulla la nit ko am jom la nit ku véridique buy wax tu sens à travers sa kii li muy wax daf ko gëm kii li muy wax dafa dëggu ci moom donc nit ku mel noonu vraiment nañ ko bàyyi mu dellu si si si njabootam vraiment ñu bàyyi ko mu continuer li muy def. amoo ay ay ay ay regret ci gestion wu Diomaye ak Sonko rawatina ci seen nguur parce que jamonoy mag Sall c'est vrai que de temps à autre doon mu ànd ak mag Sall parfois doon ànd ak Sonko. mais n'empêche que suñ doon egsi fii est-ce que amoo soit rouseel si voilà si ñi fi nekk un regret mhm. par rapport ak ñoom seen ngóor li jàpp son papa rek c'est regret parce que ñoom waxuñu woon loolu mhm. lan lañ la waxoon non waxuñu woon ne bu ñu ñëwee dañuy jàpp nit si si article euh, bu sama quatre 80 bi euh, j'avais dit que loolu warut fi am muy président euh, Diomaye muy Ousmane Sonko ñoom dañoo dañoo musa exprimer wu lu nekk si ñoom dañ koy wax mm-hmm. ñu nangul leen ko ko donc comme que dañ ne woon loolu dootu fi amati ñu jàpp nit yi arbitrairement je mm-hmm. pense que bu ñu nekkee au pouvoir dañ lu ñu mm-hmm. promesse yooyu ñu defoon dañ ko war a tenir. donc man côté boobu laa si laa si am regret. côté boobu nga donc euh, voilà alors mon père. Euh, aussi comme ni ma wax rek. yow moom xam naa ni côté politique bi moom amoo ah, aussi mun si am benn am nga regret dès le départ d' abord ah donc ça on n'en discute même pas mais pas bi de temps à autre nga koy gis wala nga koy dégg combat bi lan la leen si ñaax dafay bëgg ngeen di continuer. bëggul mhm. ngeen demande pardon comme ni ko. Mhm. Myriam waxee. waaw man dama koy dama koy seeti. Mhm. comme ni ko famille am yëpp di seetee. foog naa ni le même nombre nombre de fois yi mu ko seetee man nombre laa ko seetee. ak i Euh, ak soxnaam plutôt. Mhm. mais dama bëgg wax rek ni lim ñuy demande loo xam ne daf ci insister mooy na parlez pas de ma santé ça ne vous pas. Mhm. man je gère ma santé. Ah, yàlla moo ko yoree. ñu bari képp ku ñu fi téye voilà. Euh, ñaari fan ñett nga baal ma da ngay wax ni état de santé am dafa compliqué. non gars yi noonu la ñuy def ak di grève de la faim comme Ousmane Sonko l'avait comme euh, Ousmane Sonko l'avait fait damay def grève de la faim. il aurait pu non non non non dama la bëgg wax ne il aurait pu faire la grève de la faim comme Ousmane Sonko ne des gens plus jeunes des gens plus jeunes ñooy def loolu jël initiative yooyu. Mm-hmm. di dérabewu di di wut ku leen yërëm moom wutul ku ko yërëm. Mm-hmm. moom il a confiance à la justice de son pays. il sait qu'il n'a absolument rien fait. Mm-hmm. qui puisse expliquer que ñu koy jàpp di ko yóbbu di ko tëj ci kaso bi li mu wax yépp lu koy yoon ak xam ak yelleefam la utiliser te ñu nekk ci démocratie gis nañu sax ay président yoo xam ne dañuy jël tëgg leen pes ci ci mbedd mi Macron gis nga ko ñu def ko ko mm-hmm. gis nga ñu jël saaga ko ci foire bi amoon mm-hmm. foire agriculture boobu gis mm-hmm. ngeen ñu taxaw saaga ko day reetaan dem yoonam il met ça sous le compte de la démocratie même nit ñi bu ñu leen di jàpp dañ leen di amande wala ñu def leen ay affaire bàyyi leen ñu dem seen yoon mais kenn du leen dël leen tëj ci kaso parce que tamit ku wal mburu tudd dëkk quelqu'un qui a tout fait pour être président ou être premier ministre <laughs> il doit accepter les critiques il doit accepter que les gens parlent de lui